fi foo dëkk ak sa tour ak sa sant. waaw maa ngi dëkk assurance. tudd Rose sant mendi lan nga ñu mën a wax si jafe-jafe yi fii nii. jafe-jafe bi fii li nga wax rek moo ci nekk sécurité la manqué. Mhm. da da ngay bëgg a xëy fajar. Mhm. yaa ngi xalaat sa bakkan ci xottu gerte la nekk. Mhm. ndax benn lampe amu fi. ñaar tali bi. di suñuy oto. oto da nga génn fi di nga dox fii ak Adja pour nga mën a am oto dangay sonn mhm. nawet bu jotee dañuy sonn amuñuy kanaar amuñu tali bu baax mhm. tali bi sa lañ njëkk a gën a soxla ndax bu mhm. oto balaa mën a am il faut tali am ba pare tali bi bu normal oto yi mën a dugg mais tali bu normal oto du mën a dugg nawet dañuy yenoo jën kër mbay faar ba fii nga hmm? xam nga ne dafa métti nga dox ko tamit teg ci suñu jaar yi nga xam ne suñuy tànk baaxul boo tarxisee daanu mooy loolu ñun daal su ku ñu mën a dimbale ci canal yi ak mhm. tali bu baax bi ak lampe yu leer yi parce que mhm. tamit sécurité amu fi benn agresseurs yi bari nañ fi mhm. da mën nga génn fajar nit tatafu la ci jigéen boo jógee quatre heures du matin amoo ko la gunge il faut rek da ngay risquer rek yaay sa bakkan pour mën a dem walum lamp yi gis nañ pot lamp yi bëri amul lamp pot lamp li muy lamp li muy bëri poto yëpp lamp tàqu fi koñ yi dañoo lëndëm dëkkuwaay bi dafa lëndëm lamp yi rek la poto yi rek lañ